asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñi ngi topp suñuy vidéo di leen wax aussi que oto yooyu ngeen di gis ci début bi ay oto yu jaay la képp koo xam ni soxla na ci rek mën nañu contacter ci numéro bii di affiché donc tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo fan yee ci ginnaaw dañ fi dugaloon benn vidéo ci sunu benn doomu réew bu nekk Mauritanie mu wax ni ñoom sénégalais ya fa nekk surtout ñi nga xam te ne dañ féete ci wàllum njaay mi dañ fay dund yu mitee miti biñ ko dugalee nag am na ay réaction yoo xam te ni si jot na ci génn tey réaction yooyu lañ ñëwoon pour tegal leen ko ba pare ñu waxtaan ci joxante ci xalaat alors ñu bàyyi leen ngeen déglu ñaari réaction ñu dikkaat continuer waxtaan bi. siyaar naa la baax nakay tey mbaa yaa ngi am jàmm baax baax hmm, te am nga indi ah, nga vidéo bu am solo macha allah vidéo bi am na solo trop macha allah. Euh, mais Mourtani moom Mourtani moom man dama kaas kaas bi bëgg a dee Mourtani moom man man man ni ñu dégg ni ñu nekkee ak Sénégal sax daf maa yéem man man Mauritanie moom ah frontière Mauritanie Mauritanie ni ñu nekkee ak Sénégal te ni ay dëkkandoo lañ loolu man damaa yéem a yéem a yéem a yéem ba man dama cee man dama faa dem mais loolu dama man ba léegi sax duma ko fàtte Mauritanie moom la fa am moom foofu rek la am amul fenn fenn fenn ci adduna ni ñu def Sénégal ak ni ñu leen ñàkk respecté ak yëfu saay-saay yi ñu leen di def foofu loolu moom foofu rek la am moom. man Mauritanie dama fa daan dem di jënd ay oto di indi Sénégal di ko jaayaat quoi ay oto yu amul këyit laa daan jënd di ko indi di ko tas di ko jaay loolu laa daan def ay côté 2016 yooyu noonu rek mais Mauritanie ba ba maanaam boo nee salaamaaleykum Mauritanie sa jàmm jeex na loolu da ngaa duggaat Sénégal man dama daan dem di ñëw rek mais coono ba ma daan daj man mi daan dem di ñëw damaa demoon ba man man man fii Sénégal yi fi toog di liggéey nan lañ fi mën a toogee man loolu mu nekkoon sama problème man. naar yi xeetu saay-saay yi ñuy def Sénégalais yi dafa dafa jéggi sax dayoo. barke alxuraanu karim dafa sax jéggi dayoo billaay wallaay waxuma la dara mais soo soo soo soo soo ñëwee ba frontière bi Rosso Sénégal boo fa ñëwee jël seen bag bi ba war a wàcce Rosso yi xoolal seen policiers yi ci ci ci ci territoire bi lañ lay xaar maanaam yow duñu la xaar duñu la may sax sa tànk tegee ci suuf maanaam yow ñooy taxaw ñoom ñoom ñooy taxaw tàllal la loxo yow ñoom ñooy taxaw bu bu gaal gi teeree rek ñoom ñoo tàllal loxo nga teg nga jox leen loxo ñu ñu xëcc la nga jéegi nga génn gaal gi jéegi ñu ñu ñu taxawal la ne ba Sénégal yëpp wàcc ñu boole leen gur gur gur gur gur yóbbu leen ci benn benn euh, bureau laaj la carte d'identité laaj la carte laaj la ku yor xaalis ku yor xaalis ak yooyu noonu ak CFA foofu boo fay dugg maximum di nga yor benn 100 euro moom lu dee dee dee di nga wecceeku benn 100 euro ak loo mënti xew moom 100 euros di nga ko wecceeku ba pare léegi nag boo yoree lu ëpp 100 euros bu la neexee nga wecceeku lii sax mais 100 euros moom par force da koy yor loolu moom far force la moom da nga koy yor man nag ba ma demee euh, ma yor ma wecceeku li ma soxla yi nga xam ni soxla naa ko ci euro ma wecceeku ko li ci des ma ni non lii duma ko wecceeku ndax CFA la su ma dëppee dama koy dama koy garder quoi mais CFA boobu xaw na ma yóbbu laa bisi na dañ lay téye di la tag tegee di la tag tegee di la paasante xool kii da lay jàpp ni la day nangu xaalis bi léegi laaj la xaalis nga jox kooku mu bàyyi la envoyé la keneen kooku defaat la maanaam bala nga ak génn ci seen lobby boobu rek maanaam bu dee 2 million nga lu dee dee dee dee cent 000 francs yi dana fa des ci ñoom nga soog a dugg ci biir dëkk bi te kenn kenn kenn kenn du du la du la du la jàppale yow doo am koo xam ni moo lay moo lay defar intervenir yow doo ko am nga soog a dugg dëkk dugg dëkk bi boo ko defee coono bi ngay daj ci biir dëkk bi ba keroog ngay génnaat maa ngi taali man problème bi moo fi njëkkoo am ak benn nit mooy bi ma demee fi ma daloon dama fa dal euh, ki ma dalaloon ma wax ko souvent damay xëy si marché bi dem dem euh, xooli oto yi euh, mu ni ma waaw ma ma dem xooli oto yi après gis am ay oto yu ma gis quoi am yoo xam ne neex nañ ma am yoo xam neexuñ ma mais ci jour boobu jotuma jënd oto quoi ma ñibbisiwaat te su bëgg waa ji ma dalaloon boole ma keneen ni ma kooku moom miin na dëkk bi te xam na ay oto affaire yooyu noonu ma ne ko waa amul problème kooku xëy jël si ma fajar si otoom daal may jël si yóbbu ma ci même fi ma demoon la ma yóbbu yóbbuwaat du ñu demee fi ma demoon ma ne ko non fii fi laa ñëw démb am na ay prix yoo xam ne waxaal nañ mais garaawul yow comme fii nga ma indi garaawul bàyyi ma euh, ma xool quoi. mu léegi oto yi nga xam ne waxaale woon naa ko fayoon ci prix prix yi gënoon a yomb maanaam par exemple exemple maanaam prix ma fayoon un million waa ji moom bi mu ci duggee maanaam prix yooyu dañ ma mujjee wax ji ay euh, comme fu ma fayoon un million ñu jaay ma rek moom un million c'est deux cent lañ may wax quoi maanaam day dañ ciy teg deux cent mille ngir moom quoi ma xam ni moom dafa gën a seeral affaire yi ma libéré ko ma ne ko noo garaaw man tey du ma jënd yow dama lay bàyyi nga dem mu ni ma nag moom bala moo dem naa ko jox kon euh, trente mille ma ne ko problème mu ne parce que moom moo ma indi fii ma ne ko non yow indi woo ma fi fii man ñëw naa fi démb yow da ma waxoon ne rek danga am sa ay xarit yu jaay oto da nga ma wu ma man fii ñëwoon naa waa nga ma fii indi man du ma a jox 30 000 mu ne ma du buuse te du ma ko jox 30 000 ndax moo ma fa indi ma fa nangam nangam xoolal mbokkam yëpp ñëw faral ko ñëpp ñëw faral ko ni man danaa ko jox 30 000 for force dama obligé yëkkati 30 000 francs jox ko ko moom mu dem man ma soog a tourné dem jëndi oto xoolal boobu coono Murtani lu fa lu fa sénégalais di daj man man sénégalais bu dem Murtani di liggéeyi sax man danga may yéem man ndax parce que man noo mën a bàyyi senegal dem Murtani gu dëgër gii war faa mën a am liggéey ba pare di fa muñ li la naari di def man loolu laa njëkk xalaat ni man nan la mënee nekk man loolu mooy sama problème. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di siyaare bu baax di lu seen liggéey bu baax di wax ni bu ñëpp meloon ni yéen kenn du umpale dara ma di siyaar bu baax man la Chérif Amar dëkk Daaru Muxti di wax ni Mauritanie googu nekkoon naa fa 2000 laa fa nekk ba 2015 laa fa jóge xam naa ko bu baax xam naa tamit la fa Sénégalais yi di dund lépp loo xam ne wax nañ la ko rek ci ni Sénégalais ñu ngi koy dund foofa rek euh, am na lu des. man nag dama jàpp ni Sénégalais yi ci bari dañu dese xam seen bopp waaye bu ñu xamoon seen bopp yaakaar naa ne foofu noonu am na ay coono yu ñu fay dund doon fa jógee ñëw fii ci seen réew ndax yaakaar naa ne ku toog sam réew rek lépp loo bëgg da nga ko am su dee naqar moo la fi jëlee nga dem Mauritanie foofu naqar ba day gën a yokk ak lu mën di doon rek day gën a yokk yaakaar naa ne soo toogee fii am na ay experts Sénégal yu nekk fii muñ nañ la dimbalee rafetal sa rafetal sa sa xol. te la conseiller ba nga xam ne mën nga toog ci réew mi di liggéey di njariñu man de wax dëgg yàlla ba ma jógee Mauritanie dugg ci Sénégal ba léegi aw ma dara lu ma rëccu ci li nga xam ne def naa ko réewum jàmm nag soo fa nekkee xa eh, yaatalun la dañ lay xatal tout le temps eh, nga jógee fa moo gën a rafet ak jógeen wu rafet parce que metti na policier fa nekk man dama faraan daan taxi taxi naa fa huit ans dawal naa fa personnel maa ngi doon dawal personnel benn quartier bu naan PK fa laa mujj sax jóge fa ñëw Sénégal moo wax doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk foofu nan gëm yàlla ca xam ni yàlla jeexlewul dara nanu muñ ca xam ne yàlla jeexlewul dara ñibbi seen réew mi toog fi liggéey yàlla dimbali leen loolu moo am solo waaye réewum jàmb boo fa nekkee xajalul la tamit day metti rek man daal maa ngi leen di ñaan mooy kenn la fa nekk mënuñu ko fàjjale la nekk ca naareew ñu ko faa nan góor góorlu jéem a xalaataat delloo seen xel ñibbi si Sénégal waaw man daal loolu laay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi rafetlu bu baax nag seen liggéey di leen sant di leen gërëm. donc bii moo nekk deuxième réaction bi réaction bi nga xam ne nag mooy mujj te moom la ñuy tëjee vidéo bi muy réaction boo xam ne sunu benn maman moo ko def dugaloon nañ ko mais dañ koy dugalaat parce que dafa doon wax yoo xam te ne dafa am solo. donc moom la ñu mujjee teg tëjaale vidéo bi ñu ngi tuub encore une fois di jégalu ñëpp di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah. salaamualeykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ku nekk ci turam ak ci santam di leen wax ne visionné naa vidéo bi gis naa ko dégg naa liñ ci wax à propos de no compatriotes la qui vivent en Mauritanie ñu fay dund lu méttee méttee métti lu tar parce que nii ñu wane nii ci video bi honnêtement. lii moom wax dëgg yàlla un être humain kenn waru ko traité nii te vraiment c'est des conditions très difficiles te ñu ne ci biir Afrique la ñu nekk africain di ko teg moroomu africain kon loolu doy na waar mais tamit nañu xool ne xale yi tamit bu ñu bëgg a kut ko kut tukki dem rek parce que koo wax mu ne wërsëg rek mbaa bàmmeel bu sori loolu du wax ndax am na loo xam ne vraiment bu ñu naree dégrader sa personalité ah wax dëgg yàlla am na loo xam ne di la traité ba nga xam ne Euh, euh, euh, mala sax moo la fa gën traitement loolu daray àddina jaratu ko parce que ñii lii ñuy dund nii wax dëgg yàlla tar na metti na te li ma ci jaaxal ñoom nee nañu consulat bi yëg na ko yëg na ko te réagiru ci te moom normalement comme sénégalais la fa représenté bu ko yëgee war na caa mën a intervenir le gouvernement sénégalais yëg ko ñu faj lu mel ni parce que lii tamit wax dëgg yàlla dafa metti ci ay ndaw yoo xam ne dañu dem pour wuti ndaxte tamit tukki moom cër la bu yàlla nee sa sa doo ko amee sa dëkk ala kulli àllin il faut nga génn te bu ñu toggee sa añ quelque part il faut nga dem añu ko fa loolu moom mënul ñàkk xam naa loolu ak jom rek moo tax ñuy dund lu tar lu mettee nii mais nag wax dëgg yàlla lii moom ça mérite beaucoup de réflexion parce que c'est des conditions atroces des conditions dures ki dépassent l'entendement lii moom wax dëgg yàlla c'est pas un traitement humain te nga ne Afrique laa nekk te man li ma jaaxal pourquoi ñoom particulièrement la les sénégalais ñu teg leen loolu ba boo jaayee ba ngoon jot ñu ñëw boo amee vingt cinq mille ñu la la di nga ma jox trente mille nga jël ca la nga économiser woon teg ca à ce rythme da sonn rek mais doo am dara. mais ci biir vidéo bi maa ngi dégg question yi nga koy posé ndax ñoom lan moo tax mënuñoo ñibbi si Sénégal ndaxte man euh, si je comprends bien ils sont pas dans des bureaux ñoom dañuy jaay. ils sont dans l'informel te informel boobu mun nañ ko def Sénégal te leen nit nañ ko wax nag parce que tamit gis nga dëgg bu jotee rek nañ ko wax parce que bu ñu dénigré lii ñuy def ba pare xam nañ ne c'est inhumain jaaduwul baaxul mais tamit il faut ñu wax ak suñu doom yi nag parce que le sénégalais est indiscipliné wax dëgg yàlla ci ñenn ñi ma ko war ax ngeen jéggal ma sénégalais dafa am ñu indiscipliné te gis nga indiscipline bi am fii Sénégal buñ ko juboo réewu jàmbur dañuy am problème nañ te dëgg parce que encombrement encombrement humain bi am fii Sénégal amaana dëkk yooyu duñ ko nangu te le sénégalais fu mu dem wax dëgg yàlla day dem ak ay jikkoom dañu war booy dem tukki dëkku jàmbur nga summi sa jikko comme mbubb teg ko fii boo demee la dëkk ba bëgg nga di ko def loolu tamit am na ci xaw ma nag loolu la xaw ma du loolu mais am na ci ay comportement yoo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi di am ko fii ci Sénégal gii nga xam ne ñun sax ñun entre ñun daf ñuy metti boo demee ci marché gis nga yaa une anarchie totale trottoir amatul Sénégal kenn mënatul dox ci trottoir ci tali bi ngay dox di fel toog oto yi ndax indiscipline te da ngay gis marché yi par exemple ku am cantine génn ci biti di lal xam nga genre yu comportement yu mel noonu aussi bu fekkee ne ñoom tam fu ñu dem yóbbu ko fa te dëkk boobu tamit neexu leen ils toujours des problèmes à propos la mer la géej gi léeg-léeg dañ leen ti limité ne leen bu leen weesu fii mais ñenn ñi dangay gis dañ koy weesu xam nga loolu aussi problème lay indi bu ñu waxee ci lii ba pare tamit nañu yaraat suñu bopp bu ñu dematee dëkk suñu doom yi bu ñu dematee dëkku jàmbur nañ xool la dëkk ba bëgg ñu di ko def mais boo jëlee jikkoy Sénégal fii yóbbu ko yeneen dëkk moom wallahi di nga am problème parce que sénégalais fii am na indiscipline wax dëgg yàlla anarchie totale lu neex waay def koo wax mu ne fii mbooj du buur la fii laay sànni fii laay teg xam nga yooyu aussi boo ko yóbboo ci dëkk bu ko bëggul mun na la indil problème waaye de toutes les façons comme ñoom ñu ngi dem bay dund lii lii dëgg mooy nañu wàññeeku si ñibbi si waat seen dëkk parce que bu fekkoon ne ils sont dans des bureaux et autres ma mën a xam mais ils sont dans le service informel booy dem di wuti ba nar faa torox nag nga ñibbi waat sa dëkk toog fa man daal noonu laa ko gisee ku ma ci heurté sa conscience aussi je m'en excuse di jéggalu bu baax a baax baax parce que wax neexul mën nga wax ba wax loo xam ne di nga heurté conscience su nit te doo ko tey te fekk bëgg a defar rek moo la ci war may nuyu ñëpp di nuyu waa lu xew TV bu baax a baax a baax man la woon Mama Daba. day confirmer li nga xamante ni si moom la nit ñi di wax et moom bu ñu déggee bi waxam bu baax moom da doon dem rek uniquement pour jënd oto di ko jaayaat ba pare mu doon fa daj lu métti loolu lépp kon tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk jamono jii nii ana lan la ñuy daj jot nañ nag benn jot nañ nag aussi. benn réaction koo xam ni si moom nee na Mauritanie la dëkk fa la juddoo fa la màggee fa la defee lépp mais moom dafa weddi carrément li nga xam te ne moom la nit ñu wax mais moom àndul mais moom àndul ci li nga xam ni si moom la nit ñu wax donc donc après incha allah aussi dina leen dugalal li nga xam ni si moom la wax. donc après tamit incha allah ci beneen vidéo dinañ leen dugalal li nga xamante ni si moom la wax moom la expliqué mais d'après réaction bi ñu njëkk a déglu nii mais d'après réaction bi ñu njëkk a déglu ni liñ ci mën a jàngate mooy que sunu doomu réew yi li ñuy dund ci bitim réew metti na trop. parce que lii kaa parce que kaa kaay mel nii liñ koy dégg bëri na parfois nag ñoom ñoo dul nekk ci ay parfois nag ñoom ñoo dul nekk en règle maanaam dañuy dem ci dëkk dëkk ba li nga xam ni si moom la digle duñ ko def loolu mën naa nangu mais je pense que ñoom ñëpp waxandoowuñ